jumtuwaay bu am solo la ci ni ñuy saytoo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram jumtuwaay boobee nag ñii di waa SIGAS def ci ay jéego yu am solo ci biir Sénégal ci li jëm ci wàllum prévention anticipation ak itam faj bi ñuy faj yenn pathologie yi. Genomic surveillance um, allows us to understand what infections are here in Senegal. bi la surveillance daf ñuy may ñu xam yan infection moo am fii naka la ñuy doxee bu ko defee ñu mën a xam yan menace moo ci am mën a amal ay diagnostic ak ay traitement waaye tamit fexe xool ndax mbir yaa ngi dox wala déet Sénégal rawatina UCAD ak SIGAS ñoom nag ay leader lañu ci bile domaine rawatina lu ñeel maladie infections yi lu ci mel ni malaria ak yeneen i infection and in particular for malaria and other infections naka noonu kii di professeur Daouda Ndiaye di xamle ne Sénégal dem na sax ba moom boppam ci wàllum xam-xam ci lu ni mel ñu ngi sant ndax bépp médicament bu ñu utilité Sénégal pour faj sibbiru médicament bu baax la parce que génomique moo ñu ko wax te moom du juum ci wàllu saytu bi également ni ñu koy saytoo également génomique bi moo ñu ko wax ba tax tey Sénégal amuñu benn complexe te lépp lu ñu wax ne loolu la ñuy doxee rek noonu la ñu koy doxalee. xam-xam boobee nag ak leadership bi di yokku bés bu jot te itam ñu orienté ko ci ëllëg bi nga xam ne dañ ci gën a maytandik ñu ngi liggéey pour que chaque at du weesoo sibbiru ñu wax ban jàngoor moo fi ne. ban garab moo ko mën a faj ëllëg ak lan mooy risque bi par rapport à la population. ñii di waa centre international de formation ci wàllum génomique appliquée ak saytu bi ci wàllum wérgu yaram gi nag dinañu wéy di wattandiku ngir gën a ñoŋal wérgu yaram bi ci biir Sénégal ak ci biir ay réew yu bëri ci diwaan bi lu ci mel ni Guinée Niger wala sax Cameroun.